ndam man tay baram ci digant assurance bu Ngunjaan Falim xale li ñu bëre neex na. waaw yaa ñu ngi bëre. nañ ma jox cooke. yow yow lan moo tax nga bëgg ciok day neexal bes Fatim. waaw day neexal bes way bu mu bëri. soo ëppalkat yi bu ñu bu ñu cookee ñoom ñëppay jug di yuuxu. wax nga dëgg wax nga dëgg de ñëppay. ah kon cooke neex na. Eh. assurance. ay la non ñaari xale yaa ngi bëri. waaw ñoom ñaar dafa mel ni daal merante nañu Fatick. ah. merante nañu waaw am na lu nekk seen diggante. non merante nañu merante nañu. ndeysaan Badou Fall. man yenn histoire yi xaw ma lan la. waaw histoire da nga ne seen diggante. waaw waaw ñoom ñaar ñii daal Fatick. waaw arbitre bi arbitre bu jigéen la wala. anamu Fatick. jërëjëf Fatick. daa sonn rek. Badou Fall daw na léegi ma ne ko daw ba raw ci ngóoro la. mais Badou Fall gëree la nag Fatou. noo gëree la. mu ay coups yu métti. encaissé mu Ngunjaan. assurance ak ak mu caaroy sur mer. ndeysaan Badou Fall cokkaas na Badou Fall cokkaas na ndeysaan assurance bu Ngunjaan Badou Fall assurance bu yàggee may wax doo dama ci bëgg dara. xam nga maa ngi faxan na ko waaye demul maa ngi wax léegi galgal ba Badou Fall oh Badou Fall daal. logique la logique la moo gën a bëgg combat bi